man maa ngi tuddu aladji gore gay hmm ñu lay laaj ban jangane nga am ci situation réew mi actuellement. situation réew mi da metti metti gi mu méttee tax jeunes yi di di di mbënd affaire di dem gi ci geej gi. hmm fiñ tollu koñ bo duggu ñetti go ñetti jeune dem nan ñi dee nan ñi kenn xamatuñ fu ñu metti way réew mi la nak ñu gis ne président de la république dafa woote li nga xam ne moom mooy dialogue national am ñu ci d' accord am ñoo xam ne d' accorduñ ci yow ban jàngat nga ci lu tax gars yi d' ci li mu bëgg la gars yi bu la gars yi mënta nekk la gars yi ne mënta nekk moo tax. ñu lay laaj dialogue bi nga xam ne président de la république Macky Sall woote na ko am ñenn ñu ci d' accord am ñoo xam ne d' accorduñ ci yow ban jàngat nga ci am. li ma si jàngat daal xam lal la lu tax gars yi ne àndoonu si. ndax nee na leader leader Ousmane Sonko bi mu bëgg a génnee le 2 février le 2 mars lu tax gars yi ànd si ñi si dee moo bari ndax nee na day ñaawal nit ñi su génnee Ousmane Sonko ak ay Jomaay Fay day ñaawal nit ñi moo tax ñu bari ànduñu si am na ñoo xam ne sax ay ba parteem nee su génnee Ousmane Sonko dañuy démissionné waaw. fay samay xarit yi fi fay sénégalais yëpp waaw. tey jii leen rek la ñuy wax xam nga ñun jeune xoolal kele Cheikh la tudd dafa jàng ba am bagam amul lu muy def maanaam ñun dëkk bi dañoo sonn ñun jeunes yi soo gisee gars yi di dugg ci gaal yi leen la rek sonn bëgg a dem teral seeni waajur ndax lal njiitu réew bi man président yi fi jaar yëpp gis naa ñëpp ba mu sëf mu mel nii tey ñun soo gisee ñuy xeex pour bëgg dëkk bi avancé man xam la moo ma jaaxal ci Sénégal lu tax mënoo fee liggéey tekk fii lu musuma xaa gis jeune bu fi liggéey ba tekk fii ndax lal jiitu réew yi ni ñuy politiquer baaxul ñun nag moom tey jii moom moom moom la lu mu bëgg lañ xamul ñun lu mu bëgg lañu xamul moom Macky lu mu bëgg lañ xamul sonal na nit ñi xeex xeex nañ fi mu ne Sonko tax ñu xeex ah léegi Sonko tëñ nañ ko xeex gars yi xeex nañ dee am na fi waxuñu Sonko man maanaam moom nu muy doxalee Sénégal quoi dafa metti tey su xalaatee moom 2012 kenn foogeew ko woon dina jël élection yi 2012 sénégalais yëpp weddi dem ànd ak moom tey su xalaatee woon loolu ëllëg ah instant yi nii mëtal na élection yoo xam ne par ñaata at la doon am Macky Sall dindi ko yokk ko. mëtal na ñu war a dem élection mu bàyyi dindi affaire yi ne amatul élection pourquoi Sénégal bii bal Sénégal la wala moom léegi lan la bëgg léegi ñun ñun sénégalais yi nañ jël suñu mànkoo bàyyi ko réew bi ay loi am ñun buñ ko tal moom mu jël Sénégal féetoo ko ñun sonn nañ sonn nañ torop Macky ngir yàlla ak yonent bi réew bi suñu réew la ñun ñëpp ko moom ay citoyen lañ tamit bëgg Sonko du tax ñu duñu wax dëgg lii lii du yoon nañ waxante dëgg moom su xoolee ngir yàlla ak yàlla rek war na tax ah, mu may gaay voté ku war a gañ-gañ ku mu gis tëñ na la mënuñu wax dëgg réew bi kilifa diine yi sax mënatuñu wax dëgg parce que tamit wax dëgg yi da ngay dem di wax koo xam ne du la déglu dangay ngay mujjee sax yow maanaam kii bu nga amoon doo ko mën a sax di maanaam nu ma mën a waxee sax mënuma sa xol day jeex ku waa jeunes yaa ngi nii taxawaa ñun ñu ngi nii ay cordonnier lañ barki alxuraani karim li ñuy liggéey seer na bagage yi seer na te cordonnier yi moom ñun moom bokkuñu si dii di tëre cordonnier yi liggéey téer léegi yàqu na léegi téer gis nga gars yi dañuy ñëw indi ay machine u daamine ñu doon liggéey daamine amatul kooku léegi kooku kooku jàngoon daamine daaminam foofu métier am yàqu na urée bi léegi chinois yi sonal nañ ñu lépp ñoom ñoo koy liggéey fii léegi ñun ñun ak ñoom dañuy jaayante sax ñoom li ñuy liggéey ñun tamit ñuy jël di liggéey loolu maanaam Sénégal tey doo demee yeneen dëkk Afrique xoola Sénégal dëkk Afrique xoola Côte moo gën a avancé Sénégal billaahi am na yenn milliers Afrique yoo xam ne soo fa demee dañu la ne fii Afrique la doo ko gëm sax ñu mësul génn ñii suñ fa demee doo ko kii man génn naa dem naa ba Niger départ waaye maanaam lu ma gis si dëkk yooyu duma ko gis Sénégal barki alxuraani karim Sénégal dafa war a changer génn fii tey jeunes yëpp war nañ fee liggéey ñun ñëpp ñëpp liggéey ba tekk fii tey jii soo demee bay dem sax da ngay dem ay France wala Italie pour vacances sax ñëwaat. waaye Sénégal déedéet da ngay gis jeune boo xam ne day liggéey jaayante ko dugg ci gaal bi pour pour teral waajuram ak ay raqam Sénégal kenn xamul bër réew la salaam maa ngi nuyu léegi mi nga xam ne ba euh, président de la république dafa woote li nga xam ne moom mooy dialogue national am ñi nga xam ne d'accord nañ ci am ñoo xam ne nañ ci yow ban jàngat nga ci am. dialogue boobu ñaata yoon la woote dialogue xaw ma ñaata yoon la woote dialogue maanaam suñu demee si dialogue boobu lu mu war a wax lañu waxul ñun lu ñuy lu ñuy wax ah lañ luñ bëgg maanaam na indi élection yi fu mu nekkoon ñun loolu lañ bëgg élection yi na indi fu mu nekkoon mu bàyyi suñu waa ji Sonko ñu ngi jàpp si koso bi ñëpp defuñu dara booy dañ doon xeex pour Sénégal fii lañ dëkk parce que lu mu bëgg a teg si loi bi loolu ñun nanguñu ko ñun moom lu mu bëgg lañ xamul. nañu wax lu mu bëgg sonu nañu tamit nañ waxante dëgg ah dialogue boobu tamit dem suñ fa démé tam du fa wax dara day naka sa salan rek dem waaw sa kaddu gu mujj ak lan ngay tàggatoo man sama kaddu mu mujj moy lu ma koy wax rek Macky Sall ngir Yalla ak yenente bi ñun ñoo la ko ñaan élection yi war ko ñu def Sénégal manam réewu la kilifa diiné yu fi nekk maanaam dañ naan Sénégal day taax Sénégal du mës a taax parce que kilifa diine yi ñoo ko fi liggéey ñun bokkuñu ak yeneen réew yi fii jàmm rek moo fi am barki alxuraani karim barki Cheikh Modou Kara jàmm kase moo fi am maa ngi nuyu ñëpp di la sant di sant sa caméraman bi di sant sama gars yi ñoom Tafa Cheikh du nuyu ñëpp daal sénégalais yëpp ñun ñaan nag élection yi delluwaat Sonko jël réew bi loolu rek laay ñaan yàlla. maa ngi tudd Ibrahima Xuma dëkk fii ci waaw loolu de am naa si jàngat parce que réew mi moom ni mu demee temps yi ñëpp gis nañ ko te parce que képp ku nekk sénégalais xam nga ni réew mi ni mu demee nii neexul kenn waaw am nañ si ay situation yoo xam ne si bett nañu daal parce que yaakaaroon woon ni dinañ dem ba deux mille vingt quatre réew mi di toll fii waaw loolu moom instant yi nii am nañ ci xol bu naqari quoi waaw. ñu gis ne président de la république monsieur Macky Sall dafa woote dialogue national mais dialogue bu mu woote am na ñi nga xam ne d'accord nañ ci am ñoo xam ne d'accord ñu ci yow ban jàngat nga ci am. non premier jàngat bi mooy Macky Sall nekkul nit kuy dialogué parce que respecté wut kàddoom quoi parce que bu respecté woon kàddoom yaakaar naa ni fii ñu toll nii tey tey du woote waat dialogue ndax boo xoolee dans six mois ci ginnaaw woote na jaloog opposition bi ñu bari dem nañ fi. bi nu demee li ñu moom ci kàddu respecté wu ko parce que bu ko respecté wu doon du du rapporté élection yi bokk na ci li ñuy li ñuy tënkoon mu respecté calendrier électoral bi respecté élection yi respecté tamit bépp koo xam ne si da nga am droit dem ci élection ñu bàyyi la nga nga def say élection parce que respecté wu ko quoi boo ko respecté wu doon du du rapporté élection yi kon réew mi ni mu demee nii nit ñi mënuñu demaat dialogue parce que nekkul nis kuy respecté kàddoom parce que njiit bu demee ba respecté tul kàddoom rek mënul woo woote dialogue ba ñëpp ñëw même bu am fekkee sax dina am ñu dem ñëpp opposition bi ñëpp duñ mën a dem quoi. kon daal su ma déggee sa wax mooy daal dañu président dafa war a teg li nga xam ne mooy dialogue bi à part wax ci waxu élection yi. waaw loolu mooy yoon parce que boo xoolee. waa Nations Unies wala waa Union européenne ñëpp ñu ngi koy teg pression pour mu respecter calendrier électoral parce que loolu mooy yoon Macky Sall dafa li mu war a def la deful li mu war a def mooy le 25 février ñi dem ay ñi dem ci ay élection li conseil constitutionnel wax candidature yi mu valide muy 20 candidats yi ñu bàyyi leen ñi dem ci élection ku gañaa ñu xam ni moo gañaa parce que mënoo dem ba def say sondage xam ni yow mii mënatoo gañaa élection yi. nga jékki-jékki reporté élection yi loolu yebal sénégalais yi la maa ngi woon ak seen yëpp ñu taxaw xam ni lii nekkul luy continuer Macky dafa yeb sénégalais yi ban koy fal 2019 cinq ans la waxoon ni la fi toog dem cinq ans yi jot na kon na na na na ànd ak ak njabootam ñu dem xam ni bëggatuñ ko mu organiser ay élection ku gañaa ñu xam ni moo gañaa réew mi nekk ci dal parce que yi loolu la soxla quoi nit ñi danoo soxla pour di dund ak liberté ku nekk am gis-gis ci réew mi di ko wax loolu mooy yoon mais bu demee ba nit ñëmatuwut a wax kilifa diine ñëmul taxaw di wax ah ku wax sax léegi ñu fekk la sa kër jàpp la yóbbu la man am naa ay collègues yoo xam ne si noonu lañ leen jàppe dañoo def benn public pipi danoo danoo statistique seen seen téléphone rek ñi leen ñi leen wër loolu du yoon. Macky Sall dafa war a organiser élection dem xam ni jeunesse bi bëggatuñ ko Sénégalais yi bëggatuñ ko mu dem yoonam vingt candidats yi conseil constitutionnel validé ñu ñu ñu ñu dem ci élection def seen campagne ku gañaa ñu xam ni moo gañaa waaw. sa kàddu bu mujj ak looy tàggatoo. waaw man li may tàggatoo mooy di wax jeunesse bi ak sénégalais yi ñoom ñëpp ñu xam ni.

di wax ni eh, opposition bi nañu gëna boole parce que lool rek mo fi jëlé Macky Sall bu ñu xaajali ko fi ñi dem ci dialogue bi ñi baña dem ñi jaar fe ñi jaar fe boba Macky Sall day am deug seen kaw ñom ñëpp ñan def ben say bu ñu wootee jeunesse bi ñun ñu fekk ci leen ci mbéd mi jigeen ñi tamit kenn warul dem dem dem ginaaw ñu dess ñun ñëpp nañ wacc ci le terrain ñi xex ak Macky Sall mu juggé fi parce que mënu ñoo taxaw à chaque fois muy woté dialogue dialogue ta luñ wax ci dialogue bi. suñ fa jógee mu jël lépp sa xool li ko ci arrangé mu def ko li ko ci arrangé wul mu sànni sa poubelle ba loolu du réew mu am démocratie réew mu am dara mu démocratie da ngay organiser ay élections yu jaar yoon ki nga xam ne si mooy le chef de l'opposition muy Ousmane Sonko bi ñu ko recalee bu ñu ko recalee dafa nangu jiital booyam pour mu dem ci ay élections Macky Sall tamit dafa war a xam ni dafa am dignité xam ni am na kum tànn mbërëm buñ ko wóoloo nañ dem ci pour que ñu ñëpp ñu ñu xam ñu jeunesse bi ñu xam ku ku ku yor réew mi ñu ñu fal la mais mënuñoo taxawaa à chaque fois bu wootee dialogue luñ ko wax du ko du ko du ko respecté ba pare nit nekku nitu parole quoi nekku nit koo xam si day sàmm kàddoom. waa situation dëkk bi moom instant moom wax dëgg fa yàlla maanaam doy na waa trop dëkk bi yongu na metti na bari na coow xama mais lépp rek lépp rek lépp rek. Euh, suñu njiit la quoi muy suñu président Macky Sall parce que jàpp naa ne moom mooy tous les présidents képp kuy sénégalais maanaam moom mooy sa président kon moom maanaam ci kon moom maanaam moom situation dëkk bi fii nii mu toll nii lépp lépp moom la parce que tey xam nga élection yoo xam si ne ñu ngi koy waaj ba nga xam si ne ñoo na pare xam nga mooy loolu quoi xam nga ni élection dootul am lool rek moo waral coow li nii. li nga xam ne mu ngi daan dooleem di jaay li nga xam ne moom mooy café Touba sëñ bi nuyu nañ la fàttali ñu tur bi. ñu ngi lay siyaar soxna si yéen ngi si jàmm bu baax alhamdulilah. Mara ñu lay laaj li nga xam ne situation dëkk bi ban jàngat nga ci am actuellement. non situation dëkk bi xanaa metti rek ñëpp xam nañ moom dëkk bi métti na te métti na lool. neex naqar naa génn naqar naa liggéeyee te gis nga dëkk bi situation bi moom kenn mënu la koo nettali kenn ko ne yàgg sa sa bopp ak ni ko ak ni ñëpp ñëpp dundee waaw. ndax parce que dëkk bi ñëpp xam ne amatul gouvernement boo xam ne mën naa yorti réew mi parce que si changement rek liñ ko ñun ñun sonni ndax parce que dañu ñu gën a xam ndax boo xoolee liggéey bi dem demee fii rek cinq heures matin nga yow di daan doole ba ay vingt trois heures yan saa yi sax dëkk bi day xaw a dëgër sew trop yan saa yi nag mu xaw a tane nag waaye nag métti na lool nag mi ko ñëpp di waxee waaw ñu gis ne président de la république monsieur Macky Sall dafa woote li nga xam ne moom mooy dialogue national am ñi nga xam ne d'accord nañ ci am ñoo xam ne d'accorduñ ci yow ban jàngat nga ci am. non dialogue bi moom wax dëgg yàlla moom man sama xalaat moom nekku dialogue boo xamante ne si li ñu war a amal la dialogue moom d'accord ma si tey d'accord ma si ëllëg te képp ku ci dem ku nekk moom. tooñ nga sa askan ndax xam naa ne dialogue bi moom moom boppam la si protéger waaye nekkul loo xamante pour askanam lay protéger moom Macky Sall waaw am na loo xamante ne si nag ñëpp ko xam ndax parce dialogue euh, bo xamantene ci ne pour mom grande porte bu rafet bu mu bëgg gënne ak ak am na ci kenn xamut ñëpp dégg nañ ci tension bi ñu démé waye amna lo xamantene ci na ñun ñëpp mom jur sax di ñu ci jaarat ak ak ki li fi amoon ñag na fi am bataay kon nak amna lo xamantene ci ñun ñëpp jur ñu ci nepp di ci wax ak waxaat waaw ñu xaar bi ci élection yi jot ñu rak waté rek mu jeex ci jamm salam salaam fomm nañ ko ak ñu ko ñun lepp ñun xëwaruñu ko 25 février rek lañ mëna xaar inshallah rabbi sa kàddu gu mujj ak lan ngay tagato ah di gërëm rek da gën gor gor gor rek tax mané ñun ñëpp ñun citoyen yi amuñu lu suñu cadeau amuñu lu suñu carte bo xamante ci mom rek liñu mëna a ñun mag mo gën xex bek taal bi ñi def ci dëkk bi yëpp amuñu njariñ ñun mom fi ne loolu rek mom lañu desal Macky Sall le 25 février tax ma li ci des ci yaakaar na mu tut sax ay 14 jours ay 15 jours presque ñi ngi naan foomu nañ ko foomuñu ko man gëm naa ne ñu élection yi ndax parce que lepp ay wax la rek yaakaar na waaw nag di leen gërëm di sant di leen ñaanal seen liggéey dox dëgg yàlla am na solo lool ndax parce que kenn ku nekk mën a dem si plateau télé waaye li ngeen def nii mooy nekk li nga xamante ne si ne kenn ku nekk li la naqar sa biir xol mën nga ko waxee si seen site internet yi ñoom ñu mën koo jàllale même ba si même président wala yeneen i citoyen yi nga xam ne mën nañu ko déglu ñu mën see jëlee xam-xam boo xamante ne si ne kenn ku nekk nga xam fi nga taxee pour ànk